nga da nga tegu ci tànk grand bi. waaw mooy sama référence di sama idole Aziz mooy sama papa mooy sama lépp ndax bi ma nekk xale bu ndaw lañ moo ko jox mooy sama lépp waaw kon nag dama nekk ci troisième rek waaw. tey lan moo la gën a marqué ci Aziz loolu dootul fàtte. li ma gën a marqué ci Aziz lenn rek mooy moom mooy sama papa mooy sama yaay ndax nga nekk xale bu ndaw ñu jël la jox la ko. mu utal la liggéey dina la fay sa weer defal lu la papa defalul lu la yaay defalul kon kooku loo mën a wax ci moom rek wax waxaat la quoi mais moom awma ma fayam waaw. soxna maam Binta gis nañ ni que amoon ngeen yéen ñaar relation bu très particulière euh, bokkoon nga ci ñi ko gënoon a jege tey daf mel ni sentir nga absence. waaw ah, bien sûr bien sûr ndax ab démb rek maa ngi xool benn vidéo boo xam ni tabasi daaw man moom ñoo nekkoon ensemble toog def ay barbecue di lakk yàpp xam nga ren war a ñëwaat gisoo ko loolu dafay lay marqué daf lay marqué vraiment waaw elle me yooyu Diakham barbecue c'est ça on dit barbecue c'est waaw elle manque Mame bien sûr. tey euh, la ñu mën wax ci moom. li ma mën a wax ci moom bari na parce que man ak moom comme ni ma wax rek ñu jël ma ma ne xale bu ndaw jox ma Aziz ma fekk si Mame Binta këram laa dëkkoon ba tey ni may waxee fa laa dëkk kooku même li ma mën a wax ci moom bari na parce que su may wax ci moom. sama xol day tooy quoi. wala yar. waaw moo ma yar en fait moo ma yar lu ne defaloon nañ ko macha allah di ko ñaar yàlla yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana fi daw si ma bi da dem. ay sa moromu jeunes yi nga xamante ne bëgg nañ yëngu ci wàllu élevage. waaw dinañ wax ni élevage moom yaatu na xam-xam bi mu ngi fi te da ngay jaar ci tànk ñi ko war ñi ko mën ñu tete la. ba nga toll ci élevage toll ci mën ko di ko def